suba ne euh, ku mel ne. Euh, Abbas wax na leen ne. va et vient yooyu c'est fait mhm. parce que euh, administration comme on a de dire c'est écrit. Mm -hmm. donc il fallait que Ayib Daffé dem DGE. Mhm. dem Sénat dem DAF dem fi mu war a dem yépp fi nga xam ne yoon moo ko wax ne dafa war a dem pour jëli këyit yi nga xam ne mooy permettre Ousmane Sonko bu nekk candidat. Mhm. te fu mu dem day am lu ñuy tuddee constat d'huissier. soo liiree tey am na benn lettre ouverte bu professeur Sidi Alpha Ndiaye muy professeur en droit public bind jëmale ko ci les sept sages du conseil constitutionnel mm-hmm. j'espère que dinañ ko lire mais dafay mettre le le conseil constitutionnel face à ses responsabilités mais face à l'histoire pour que ñu poser wu de questions simples est-ce que le dossier de Ousmane Sonko la nga xam ne wax nañ ne c'est un dossier incomplet est-ce que pièces yi nga xam ne moo ci manqué c'est des pièces yoo xam ne Ousmane Sonko moo ko amul wala mënu koo am mhm. muy tay tay lu dem di déposer mhm. wala administration Sénégal moo ko xañ su fekkee administration Sénégal moo xañ mhm. est-ce que administration bi ko xañ teg na ko ci loi wala déet te loolu la réponse dañ koy jëli ci la juge coon waxoon te mu leer nañ ci code électoral dégg naa démb le professeur Maurice Soudieck Dione j'aime bien le citer waxaat ko démb que le code dafa leer leer goo xam ne jërul ñu ci warante jëruñ ci interpréter mm. mooy su fekkee dafa am une décision de justice bu wax ne nañu intégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales wala boog réintégrer amul y a pas de débat y a pas de discussion possible et loolu le conseil constitutionnel mënu ko ignorer mais le le Pastef wala boog Ousmane Sonko yamul foofu mm-hmm. bul fàtte ne euh, am euh, comment il s'appelle Diomaye Faye est candidat mm-hmm. la question simple que tu dois te poser mooy à su fekkee ne Ousmane Sonko candidat la Diomaye Faye candidat suñu valider les deux qu'est-ce qui va question tu te ni il possible que le conseil constitutionnel a dem ci côté bi nga xam ne moom laa bëggee. léegi su invalider qu'est-ce faire de la candidature de Bassirou Diomaye Faye. am na casier judiciaire kenn mësu ko condamné ci dara. il il en règle avec le le le il est de nationalité sénégalaise ex mooy neuf pièces yi présenter les parrainages qu'il faut qu'est-ce que le conseil va faire mm-hmm. est-ce que le conseil daf koy invalider parce que mu ngi prison amul fenn ça n'existe dans aucun pays du monde mm-hmm. c'est pas parce que tu es en prison que tu peux pas être candidat mm-hmm. est-ce que le conseil daf koy invalider parce que je parle de Diomaye daf koy invalider parce que euh, Diomaye dañu dissoudre parti bi mu bokkoon ça n'existe nulle part c'est des histoires c'est c'est un mensonge boo bokkee ci bi ñu dissoudre mënoo nekk candidat amul ça n'existe pas ça n'existe pas alors su fekkee mais d'autant plus que sax Diomaye est parti ci benn coalition Diomaye 2024. bien sûr c'est-à-dire que loolu la réponse la la réponse elle est simple logique. Mhm. mooy tey tous les gens yi ñuy accusé naan dañoo bokk Pastef. Mhm. lan mooy prouver na dañ bokk. que ñu am carte de membre. wala ñu bokk ci ay instances am. est-ce que man nga xool tous les euh, je ne sais je ne sais pas combien militants ils sont euh, ñi nga xam dañuy dañuy Pastef lañ bokk nga ne ñoom ñëpp kenn du ci nekk candidat c'est pas possible donc am na yoo xam ne xel moo ko nanguwul euh, évacuons cette parenthèse yegg ci conseil constitutionnel moom journaliste bii di Moustapha Diop directeur bu li nga xam ne moo di groupe de presse Walfadjri TV ak rajo jàpp ne rek yomb na ngir conseil constitutionnel rek les situation bu nu mel. bu dee bu Ousmane Sonko laataa ñuy wax ci mbirum Bassirou Diomaye Faye jàpp naa ne rek conseil constitutionnel question yi mu war a teg ci table ji gannaaw bu Ousmane Sonko indee dossier am foofee moo di rek Ousmane Sonko su fekkee dossier am nekk loolu incomplet dooree ko ci fiche de parrainage indi na ay parrain waaye indiwul fiche de parrainage yi nga xam ne moom la waroon a ndax Ousmane Sonko moom moo ñàkkaa indi ay fiche de parrainage wala lan moo tax jotu ci ay de parrainage ku ko xaxeñ administration bu Sénégal jaare ko ci direction générale des élections lan moo tax ba direction générale des élections xañ ne du ko jox li nga xam ne moo di fiche de parrainage moo di radiation ci liste électorale yi jamono boobee nag décision bu justice jugee woon ci tribunal d'instance bu Ziguinchor annulé radiation bu nu mel ba noppi ordonné réintégration am te sax article 47 bu code électoral wax ne rek lu nu mel su amee kooku ko war a delloo ci liste électorale yi ci na mu gën a gaawee cour daal di nag annulé li nga xam ne moo di décision boobe yóbbuwaan mbir mi ci tribunal bu ndakaaru tribunal bu ndakaaru nag ca président ba di Ousmane Racine Thion moom tamit daal di annulé waat li nga xam ne moo di radiation Ousmane Sonko ci liste électorale yi ba n sax nga xam ne moo di réintégration ci liste yi kon lan moo tax ba administration bu Sénégal rawatina direction générale des élections lànk ba tëdd ci suuf ne kii Ousmane Sonko du ñu ko rétablir ci ay droit am jox ko li nga xam ne mooy di ay fiche de parrainage am kon du ñu ko joxe candidat yëpp mu ne nag moom Moustapha Diop mu jàpp ne rek conseil constitutionnel bu tegee question bu du ci table ji kon rek war naa xam ne kii di Sonko def na kim kàttanam rawatina sax lii di ay décision wala sax di ay note di ay constat yoo xam ne huissier de justice bi noon ànd ak mandataire am day defee saa su ne ak fu muy dem te mu sax mu ne rek loolee nekk na loo xam ne lu am solo la ni ko ay dafe doon defee loolu dina tax ba conseil constitutionnel xam ne kii di Ousmane Sonko nag def na kéem kattan en tant que citoyen li mu waroon a def ngir dossier mat waaye administration bu Sénégal moo bañ ba tëdd ci suuf nag ni du ko jox éléments yi nga xam ne moom la soxla ngir dossier mat foofu nga xam ne tamit moo di ca caisse de dépôt et consignation gannaaw mu déposé caution ñu jox ko quittance attestation bi nga xam ne directeur général ba moo ko waroon a euh, signé mu ànd ak quittance boobee muy fi ne nag ne moom mi ne déposé na caution mu trente millions bu ci jotut àndul ci dossier ba an lan moo tax ba moom mi du si jot ñu ne dañ leen bañ a dugg foofu nga xam ne moo di ci caisse de dépôt de consignation lu koy firnde xam ne nag moo di constat bu huissier de justice bi doon ànd ak mandataire am ak avocat am di maître Ciré Clédor Ly waaye tamit mandataire bi def dafee def na ko rek saa soo xamee ne dem nañ ci ab administration ñu bañal leen duñu fa dugg kon nag moom mi ne mu jàpp ne rek mbir mi daal bu ñu ko tegee ci table ji question par question fëpp rek Ousmane Sonko moo fi am ndam ndax lépp lu mu def def na ko administration bu Sénégal kay moo lank ba tëdd ci suuf ne du ko jox lu nu mel mu jóge foofee lu jëm ci candidature bu Bassirou Diomaye fay mu ne nag donte la sax moom mi ne mu ngi ci prison amul fenn fu nu waxee ci luwa fii ci Sénégal ci ay wala ci benn loi wala ci àdduna wërngel këpp ne nag nit boo nekkee prison amoo droit nekk te amoo condamnation bu définitive rek da ngay perte say droit mu ne loolee amul fenn fu mu am kon kii di Bassirou Diomaye Faye amul dara loo xamante ni war naa lëndëmal ay mbiram ba tax moom mi ne candidature am ñor caa sax nekk waxtaanee ndax jàpp na ne rek lu mat sëkk la te loo xamante nii la moom mi amul dara lu ko gàllankoor candidature candidature bu recevable la waaye tamit bu valable la loo xam ne conseil constitutionnel gisul lu mën a mën a tax mu daal di invalider candidature bu kii nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Faye Moustapha Diop rek jàpp kon ne kii di Ousmane Sonko dafa mettre ñi nga xam ne ñoo les sept sages du conseil constitutionnel devant les gannaaw ba nga xam ne rek def na li mu waroon def yëpp ngir bépp élément boo doon ànd ci dossier de candidature mu am ko donte le sax am na ci yu manqué ja bokk ci nag fiche de parrainage waaye tamit attestation gannaaw dépôt caution boo xam ne def na ko mu ne na kon loolu yëpp su ko ñàkkee rek administration bu Sénégal moo ko xeeñ débbu candidature am nag foofu ci conseil constitutionnel kon dafay rek daal di mettre ñi nga xam ne ñoo di sept sages yi devant les responsabilités bàyyi leen nag ak seen i responsabilités ba xam ana ban décision la jël ci lu ñu mel waaye nag moom jàpp na rek sept sages yi mën nañu mañ a valider candidature am tax na sax ba mu wut lu mu fekk ci wet ga muy candidature kii du Bassirou Diomaye Faye ñu daal na loo xam ne war na ci teg waxtaanee ko bàyyi ci xel muy candidature bu kii di Habib nga xam ne nag moom it ñeneen déposé nañ ko ci conseil constitutionnel te ñu wax ne ñoo ko parrainé rek du dara lu dul rek yeneen député Pastef nga xam ne gannaaw 23 yi jël nañ 13 ñu ngir mu ut ñetti député rek yoo xam ne dina ko mottalee parrainage am ngir déposé candidature am foofu conseil constitutionnel ba xibaar boobu génnee ba tey gisuguñu denn loo xam ne wéet na lu ni mel jërë ngeen def mbokk yi li mu doon xibaar ci wala vidéo yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu ci alante ataloolu wéy ci seen chaîne ku déggeen ci page di abonné ko ñoo ngi ñaan nga abonné ak fisakalo su ko defee dugal ci vidéo nga bokk si ñu jot cant ak ngërëm ñoo ne 14 du Sénégal fa nu mënte ne jasolabu kenn lay doon bu ci